Nous avons intervenir lycée Limam depuis 2009 Nous avons intervenu lycée enseignement technique comme formation professionnelle Si l'enseignement enseignement technique nous avons les classes de seconde seconde première terminale qui série technique T1 et T2 mais pour formation professionnelle CAP BEP BT BTS BTS tamit le lycée actuellement nous avons ici un câblage domestique mais def nañ théorie bi ba pare ndax mun ñoo commencé pratique sans pour autant ñu def théorie donc théorie bi moo leen di expliquer schéma yi ñu war a utiliser ëllëg ak yëpp bañ comprendre ko léegi di jubli ci pratique bi nag mais pratique bi tous les thèmes avant may def thèmes yi damay def théorie bi ci tableau bi expliquer leen bañ comprendre utiliser couleur yëpp fu ñu war a def phase ma def rouge et cetera comme vous l'avez vu au tableau léegi bu ñu paree ba explication yi leer ma jox leen matériel ñu dem ci panneau yi réalisé manam def pratique troisième thème Le premier thème bi def euh, montage simple allumage moy ngay dugg ci dara ci entrée bi lampe bi Voilà lampe yi premier thème deuxième thème bi 5 euh, pardon euh, montage double allumage donc si ben beurep manam liñ ci soxla mooy nga taxaw foofu commandé lampe ay lampe yoo xamante ni bokkuñu fuñ nekk par exemple buñ ñu jëlee benn couloir bu am ñetti lampe boo bësee ci même endroit bi da ngay bës lampe yi tàkk nga bëm koo bës tamit lampe yi fay wala nga jógee fo ci même endroit bi am na beneen pièce bu nekk de l'autre côté ay am tam mën nga ko commander à partir de du même endroit mais tu peux faire la commande mën nañu def commande bi ensemble maanaam taalaloon lampe yëpp ñu tàkkandoo

réaliser au niveau des panneaux si panneaux yi léegi gis nga leen ni réaliser nañ ko mooy va-et-vient maanaam nga dugg si benn pièce mu am ñaari bërëb yoo xam ne mën nga faa taal lampe yi di ko fa fayee loolu mooy va-et-vient ah dañuy opérationnel loo leen jox ñu installé ko te te formation bi ma fàttali leen ne tamit du électricité euh, bâtiment rek de dañuy def technologie dañuy def dimensionnement solaire manam boy installé solaire xam installation solaire bokkul ak installation yi boy installé solaire li ngay soxla moy dimensionnement nga xam puissance bi nga soxla ci bërëb bi ngay installer puissance boobu boko xamé dalay permettre nga mën choisir sa panneau ndax mëno jël n'importe quel panneau rek installé ko mën dalay permettre tamit nga choisir say batterie ndax mëno jël n'importe quelle batterie rek bolé ko loolu yëpp dañ koy dañ leen koy jàngal dañ leen di jàngal tam fois climatisation ak domotique maanaam installation intelligente sa kër boo ko bëggee sécuriser nga xam ne bunt bi ku romb rek mu def benn signe wala tamit làmp yi euh, acte de présence mooy tax lampe yi tàkk loolu lañu naan installation intelligente yooyu yëpp dañ leen koy jàngal formation bi daal macha allah bu ñu fi jógee dinañ opérationnel. ëllëg ñu xam nga métier tamit da koy jàng mais boo ko foraatoo du dox loolu laa leen doon expliquer sànq may leen da leen ngi il faut avoir l'habitude boo leen installé.

mais boo ko jàngee école jàng normes yi di nga xam booy installé di nga mën a installé def installation bu mucc ayib nga xam ne benn danger du si am. waaw dañuy koy rafetlu ndax euh, formation professionnelle yu tey dafa toll foo xam ni fii ñëpp ci war a dugal seen loxo parce que ndaw yi manqué xëy bëri nañu te yàgg nañu wax ay xëyu ndaw yi waaye fii coow li nekk mosuñu ko laal niñ ko war a laale mooy. utal leen métier parce que nit boo ko bëggee utal euh, xëy da nga ko utal métier bon allemand yi nag ñëw nañu fekk si yeneen euh, financement yi bon ñoom li ñuy rafetlu ci ñoom mooy xëy na seen i exigence bari na waaye seen i procédure aussi compliqué wul moo tax bon affaire bi gaaw nañ koo taxawal daal waaw. ëpp nañ fanweer daal parce que dafa am ñoo xam ne ñu nag bala nga leen di gis affaire bi tàmbali bon mi ngi dem bon fi mu nekk nii ñu ngi ci et. phase bu njëkk bi dañ koy def acclimatation après doog a jël vitesse de croisière te fi mu nekk nii am nay spécialité yu bari ñaar yoo xam ni moom lañ sibleegum te bu ñu paree ci ñooñu dinañ jàll ci ñeneen ñi incha